<laughs> Aïcha juste rappeler une chose vous le savez tous comme moi que président Macky Sall convoqué woon na fi dialogue le 31 mai. effectivement et que joxoon nañ ko conclusion aussi le 24 euh, juin à deux jours de de de la fermeture de la session unique bi nga xam ni assemblée nationale am na ko parce que assemblée nationale avant deux sessions la doon am mais maintenant c'est une seule session unique dans l'année maintenant on peut convoquer le président de la République am na possibilité convoquer des sessions extraordinaires mhm. et à deux jours de la de la clôture de de la de l'unique section quand même ñu woon tout ce qui est consensus ak conclusion yi nga xam ni jëloon nañ ko au niveau du dialogue mënuñu ko woon discuter à deux jours c'est pour laquelle raison pour laquelle du moins président Macky Sall convoqué la première session extraordinaire le 17 juillet bii ñu génn mais bi ñu ko convoqué mhm. il y avait deux points à l'ordre modification de la constitution et du code pénal de, de procédure pénale du moins et aussi la loi modifiant le code euh, électoral, électoral. la loi 2021-35 du 23 juillet 2021 loolu noonu bi mu amee ñu dem examiner et que dans la pratique en général il faut commencer par euh, tout ce qui concerne la constitution avant que ngay laal yeneen yeneen projet de loi yi ñu commencer par ce qui touche la constitution avant que ñuy pare et 15 jours yi waa yeewi askan bi parce que am nañ possibilité def recours ñu dugal recours. Mm. maintenant on était arrivé à expiration des 15 parce que juste encore aussi préciser que euh, une session extraordinaire ne peut durer plus de quinze jours maintenant on était à expiration de ces quinze jours là on était obligé de fermer cette clôt cette, cette cette session et d'en ouvrir une autre c'est-à-dire le jeudi 3 c'était hier. on a ouvert une autre session extraordinaire qui ont été par les députés non seulement de de de de Yewwi non du tout de de, de du PDS wàllu ah, voilà. PDS <laughs> euh, Taxawu Sénégal uh-huh. Uh-huh. Euh, nu mu tuddati Benno Bokk Yaakaar ak benn député bi nga xam ne moom la réew mi am loolu soo ko déggee dafay wane ni ñooñu ñoo teewoon ca dialogue ba kon ce qui veut dire que la nekkoon ci dialogue ba ñu ngi toujours ci ci tempo bi pour mën a. ci euh, dynamique bi si dynamique bi pour mën a consensus yi nga xam ne ak conclusion yi nga xam ne defoon nañ ko fa ñu mun ko eggale et que li ce qui le point qui restait yaa ngi ko évoqué tout à l'heure foofu laa bëggoon ñëw je je faisais tout tout un peu d'historique rek avant may egsi mooy le le le projet de loi modifiant le code électoral. loolu noonu tey jii sax la ñuy commencer en commission d'abord. Mm-hmm. avant que demain incha allah ñuy dem en plénière que dafay nekk aussi. au au bonheur de tout le monde man sama sama sama xalaat la le fait que Karim Wade ñëw bokk moom mooy ñëw wala du ñëw en tout cas mu am droit bokk. Mhm. Khalifa Sall am droit bokk keneen bu mu nee am droit bokk aussi y a pas de souci toute façon xam naa instant bi kenn du wax ni. Macky Sall dafa bëgg moom jël élection yi moo tax muy tere nit yi bokk comme am nañ habitude di ko ko dëkkale et je pense que cette fois yi les députés yi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak parti yooyu noonu ce qui veut dire que seen intercoalition boobu ñu doon wax kon adduna bi wala Sénégal bi dans le champ politique kon ku ci nekk sa sa sa sa sa sa ngay xool parce que fu sa intérêt nekk di nga ca jàpp ba mu dëgër et lii c'est dans l'ordre normal des choses parce que ñoom ñoo dem toog waxtaane ko au niveau du dialogue ñu indi ko à l'Assemblée nationale nous en tant que parlementaires on ne peut que examiner apprécier et maintenant suñ ko waree voter bi nga xam ne moo consi moo moo concerne constitution bi bi ñu koy voté on avait plus de cent dix euh, euh, mains levées pour pour euh, des gens qui sont d'accord avec cette loi-là alors que nous nous sommes quatre-vingt-deux députés Benno Bokk Yaakaar kon yeneen yeneen yeneen douze de plus yi wala yeneen vingt de plus yi fan la ñu jóge wala vingt-deux de plus yi pour vous dire ni même pour l'ouverture de la session unique extraordinaire du moins quatre-vingt-quatre députés rek bu ñu ko amoon signataire signataires ñu tijji session bi mais on a eu 115 yoo xam ni signé nañ pour ñu mën a tijji nouvelle session bi